dal leen ak jàmm ab musiba mabakumba moo xew ca Touba ab pa buy wuyo ci turu Modou ay atam toll ci juróom benn fukk moom lañ door kuur ba pare rendikoo mbir moome mu ngi xewe ci wetu kër sëriñ Fallou fu sorewul dara fi nga xamante ni moo di juma bu Touba ki def nag jëf ju ñaw ji yoon teg na ko loxo tey ji ci aljuma ji sax ca lañ koy defeere foofe ca parke ba jëf ju ñaaw ji nag mu ngi xew guddik alxamis jàpp aljuma gi nu génn ki nga xamante ni nag moo faat góor gi bi di wuyoo ci turu Modou Lo bi mu defee jëf ju ñaaw ji ba pare dawul daayut dafa toog xaar ba polis ñëw daat koy teg loxo li ñu jote nag ba waa ji faat bakkanam moo di góor gi nga xamante ni moo di Modou Lo di ab gardekat ca jumaay Tuuba dafa sàkk woon ci ki nga xamante ni moo di waa ko fat mu jóge foofe ca wetu jumaa ja loole nag waa ji daal di koy gàntu ca noone ca lañ jàppante ngóor si dóor ko kuur ba pare daal di faat bakkanam Sëriñ Modou Lo mi ni faat nañ bakkanam nag nekkoon na ab jàngkatub xasida nekkoon na itamit boroom kër boo xamante ni jot na am lu toll ci juróom benni doom